daan nañ suñu njiit ci réew président Macky Sall foofu la ci RFI France 24 mais euh, kaddu yi mu yëkkati ñu bari euh, nee ñu ñoom dañu bëgg a conjuguer Ousmane Sonko déjà euh, au passé est-ce que jàpp nga ni Ousmane Sonko jamono jii nii mënees na ko conjuguer par la passé. Mm. te mu am des millions de Sénégalais yoo xam ni ñi ngi koy xaar ci élection yi nga xam ni moom la ñu dégg. waxu politicien la rek moom li muy wax moom ci jëm boppam gëmu ko ki mu doon waxal gëmu ko ñi koy déglu gëmuñu ko ndax xam nañ ni amut moom mi koy wax gëmu ko. ki ko doon interroger gëmu ko ñi koy déglu itam gëmuñu ko ndax gis nañu la réalité dañoo toll ci ère du numérique mooy ak loo ñàkk xam ñàkk xam actualité soo duggee ci net bi Facebook Twitter foo dugg la réalité di nga ko gis te les sénégalais même ku ci nekk tey sa journaliste bopp nga soxla woo ku la rapporter ay mbir xam naa dañ ko doon poser question ngir rafetal rek waaye ñëpp xam nañu réalité bi mooy lan Ousmane Sonko mënoo ko conjuguer au passé mënut ne. ndax il au cœur des Sénégalais. ci kaw actuellement mi ngi ci kaso bi euh, am xam ne bi xëy na ñëpp xam nañ ni ñëpp xam nañ ni ba léegi il est éligible mooy lan war na mën a jongante dans un état de droit ci yoon day dooni candidat mais ndéem. bon considéré nañ ni dañoo am recul démocratique que nekkatuñu ci état de droit xamuñu nan ñoom lañ koy décider nan la ko conseil constitutionnel di décider mais en tout cas ci état de droit moom il est présidentiable foog naa noonu lañ koy waxee mooy mën na doon président après nag xamuñu ñoom nan lañ koy yëgee mais Ousmane Sonko mënuñu ko conjuguer au passé Ousmane Sonko dafa dugg ci biir histoire te gëm naa ni gëm naa ni yàgg-yàgg ñoom li ñu bëgg dinañ ko am. que ñu bëri euh, ñu ngi jàppale xëy na ay candidats ñu muy ngi pour euh, la France Afrique mais bu demee ni euh, moor yi fii nii amul lenn luñ fi nekkoon doon yooyu noonu tey jii bu bëgg luñ ko ce que ngi noonu moom Ousmane Sonko tey ñu ngi leen di jéggalu ci problème son boobu noonu moom Ousmane Sonko tey bu ñu demee. Mm-hmm. ba président Macky toog ni moor yi fi amoon yëpp. amul leen lu mu jotee ak mbirum ñetteelu mandat mais euh, ñi fi nekkoon di wote ay appel à l'insurrection te wax na que ni parti Pastef bu ñu ko di dissoudre c'est parce que dañu fi nekk di def ay appel à l'insurrection est-ce que loolu itam euh, nekkul ni xëy na moo nekk biir boo xam ni moo mën a gàllankoor Ousmane Sonko. xam nga lu tax sànq ma ne la moom gëmul lu muy wax ki koy interroger gëmut li muy wax parce que ginnaaw bi émeute yi amee chaîne bi mu defee émission wam ak ñeneen ñoo xam ne ils sont extérieurs bokkuñu Sénégal du ñu ay sénégalais dañoo def reportage reportage boobu du benn sénégalais bu ko def mooy ñoom ñu koy interroger ñoo gën a xam réalité yi. Mhm. ndax xanaa nag doo dem bay def reportage. Mhm. di def reportage boo xam ne amul ça n'existe pas. mooy sañu ñoo véhiculer information bu existé wul. Mhm. waa ñoom ñiy def reportage bi. ñoom ñoo wëlbatikuwaat laaj ko ils connaissent la réalité parce que def nañu reportage <laughs> ils étaient sur le terrain <laughs> dañu ko ah doon dañu ko doon maquiller rek ah dañ la doon maquiller <laughs> di mooy turam googu dañ ko koo def ba mu mat mooy dañ la doon maquiller c'est que tamit ndeysaan xel dafa nañu utiliser suñu xel daal nañu utiliser suñu xel ndax man mi ngi mel ni tey yow nga defaral ma benn reportage boo xam ne yaa ngi wax ci man lu ñaaw te mu biir la ni li nga wax loolu am nga woowaat ma ne ma noo ko gisee ma nekk di wax ci lu ma neex yow xam nga ni li nga wax moo am moo tax ma ne la moom mii wax gëmut ay kàddu kàdduwam xam na ni amut ñi koy interroger gëmuñu ko ñi leen di suivre itam gëmuñu ko ndax ñooñ ñoo defoon reportage bi xanaa jeexal nay wax moo boobu su ko tegee ci ndodd Ousmane Sonko day wax lu ko neex ñëpp xam nañ la réalité on na fait que se te yàlla suturaal nañu ba ay nit yu bokkul ci ñun ñoo ñëw def reportage bi wëlbatikuwaat woo ko moom war naa xam ni lépp cirque la rek waroon na nangu. buy tourner. waaw mais est-ce que jàppoon ne tey jii euh, propagande médiatique parce que la France euh, instant bi ni en tout cas. Euh, bu ñu demee ba jub fii nii ñoom ñu accordé ko interview boo xamante ni si ñi ko seetaan euh, jàngat yi ñu def en tout ñu def jàngat boobu. Mhm. mooy que nu ñu fexee génne Ousmane Sonko ci présidentielle yi ñu dëgmal la euh, est-ce dañu toll ci moment boo xamante ni comme ni ñu koy defee ba tax ñoom ñu bëgg a jiitu ci xëy na ci communication et ils savent d'ailleurs que ci communication amaana la mën a gagner bañee loolu mais les faits sont là mooy ak loo communiquer communiquer ci loo xam ne du dëgg les faits sont là on a des preuves mooy ñun avancé wuñu loo xam ne leeruñu mooy li may faral di wax bi ay policiers di jël bouclier xale image yi mu ngi fi. Mhm. ba tey ce sont des preuves kenn truqué wu ko. bi ñuy rey froidement manifestant boo xam ne drapeau la yoroon mhm. les images sont la et ce son des forces de l'ordre qui l'ont fait bi ñuy torturer ay nit ba di leen gaañ da ngay gis nit ñi ñu ngi ils étaient en les images sont là mooy ak lu ñu muntu muntu bataille médiatique dafa am réalité te lépp dañ cee am ay preuve lépp dañ ci am traçabilité te lépp ñi ko war a yéegal yéegal nañ ko léegi ñoom nañu wax lu leen neex neex na ngay gént yow di gëm sa gént yow la engagé mhm. mais les faits sont là mooy lan yàgg-yàgg dëgg mooy mujj te am nañ ci yaakaar bu baax a baax man gis naa ni ñoom dañoo jàpp ni amaana ñoom gañe nañu mais dañoo dañuy nax seen bopp mooy li may faral di wax dañuy nax seen bopp parce que même ñi ñu jàpp tëj leen kaso jàpp nañ ni noot nañ leen waaye wallaahi ma nee naa terme détenu politique yàggatul dara léegi ma changé ko. changé ko jëm ci lan. ma ne les ambassadeurs politiques. ah d'accord parce que yéen a ci xeex boo xam ni. ñoom ay ambassadeur lañu li ñuy xeex ñun sax xeexuñu ah, ko. léegi ñoom ci li ñu nekk ñoom. Mhm. ñun sax nekkuñ ca am na ñoo xam ne yàkkamti génn bëri na ci te ñi ma lay wax du ñu ay détenu yoo xam ne xamuñu leen ñu ñoo xam ne xam nañ leen ñi ngi def liggéey bu ama am solo ba. yàkkamteetuñu génn parce que mhm. gis nañ ni liggéey bi ñu fay amal moo ëpp doole lu mel ni prison nga xam ne désinformation moo fa doon daw nit ñi daanaka lu dul ay làmb yooyu yenn yi daal lañ doon seetaan taluñu woon dara mais su ñu demee ba di tenir yenn discours yi ba seeni débat doon ay débat d'idées ñuy waxtaan ci doxalinu réew bi ba ñoom ñu sentir ni ñoom ci réew mi lañ bokk li may naan sonkorisation bi am na ci biti waaye ci biir la ëppee doole. Mhm. ba ñooñu yàkkamti wuñu lu dul génn mhm, am carte d'identité dem voté ji ci ñoo xam ne musuñu woon xam nan la ñuy voté jee waaye kooku da nga koo dimbale wala da nga koo lor kooku dimbale nga ko di ndax may nga ko mu missionné foofu kon ñooñu ay missionnaire politique la ñu kon ñoom jàpp nañ ni dañoo lor nit ñi man saa yu ma seeti jee détenu yi sama xel gën a dal mhm. yàlla xam na ko saa yi ma seeti jee détenu yi ba ñëw dama naan dëgg la ñu ngi exiger seen libération mais ñooñu ñu ngi liggéey liggéey gu am solo ñu ngi fay missionné ndax bañ fay dugg ñi ci ëpp xamuñu leen woon waaye ci foofu lañ leen xamee kon yàlla na borom bi gën a dëgëral seen taxawaay moo tax ma ne la gouvernement gii ñu jiite mhm. non comprendre ñu sax enjeu wu li ñu nekk di def. d'accord te dinañ ci xam dara ci lu yàggatul dara. après danañ ci ñëw sax ci anam gu gën a yaatu ci détenu politique yooyu. Mm-hmm. mais est tey euh, ni tey jii mooy waa waa France 24. Mm-hmm. Euh, tey communication boobu noonu sur le plan international bien vrai que xëy na ñoom mënuñu xam les yi euh, réeral wala ñoom ñu yaakaar que ni effectivement xëy na Ousmane Sonko candidat la boo xamante ne si ni nitu firnde la parce que ñu ngi koy tuumaal que ni dafa ak lien avec. des xam ak euh, des islamistes je sais pas. Mhm. est-ce que loolu tey mënul am leen lu yàq euh, ci turu Ousmane Sonko ci au niveau international. xam nga tey yow journaliste nga mooy dëgg la di nga dalal suñu genre gi mais tamit soo amee occasion wu soo amoon occasion wu dalal le président da nga koy dalal. effectivement parce que loolu mooy yokk sa aura. Mhm. même soo xamee réalité yi. Mhm. def enquête def def reportage ba xam dëgg bi lii la. xanaa nag soo amee occasion ku mel ni le président du Sénégal ak fi réew mi toll nga war a mën a am ak moom entretien da nga koy saisir kon ñoom ils son dans le rôle mhm. le président aussi il est dans son rôle et quand je dis qu'il dans son rôle mooy moom tamit mënul lu dul jéem a setal deram waaye la réalité elle est comme ni ma la ko waxee te kenn mënu koo dindi donc li ñuy li muy def noonu donte ñun gëm nañ ni moom sax gëmu ko gëmul li muy def waaye dañ ko koy nangul su ko neexee lu mu sentir na ko def mais médias yi ñoom ils sont dans leur rôle te képp ku bëgg am la bonne information xam nga fan nga koy wuti ji. d'accord d'accord mais ci loolu tey jii en tout cas euh, bu ñu sukkandikoo ci service de communication du département d'État américain déjà ñoom sax defoon nañu benn rapport boo xam ni la ñu la ñu xam ne woon mooy que ni événement mars yi ñi ci faatu euh, gouvernement du Sénégal état bi moom moo leen faat. Mhm. wala ñu faat leen ci turu gouvernement bi mais instant bi ñoom euh, bu ñu sukkandikoo ci ñoom ñu sàkku. di exhorter à ce président Macky Sall mu euh, poursuivre ses efforts yi def pour fexe def des élections inclusives yoo xam ni tey ñëpp mhm. daan ci bokk est ce que tey yaakaar nga ni lii nii c' une nouvelle boo xam ne est ce que jàpp nga ni euh, dina mën a déglu ñi euh, ba tey jii mu amal élection yoo xam ne en tout cas puisque am na ay pression yoo xam ne mu ngi jógaat au niveau international comme ni mu amee woon ci mbirum troisième mandat est ce que jàpp nga ni lii nii xel mënees na ci dal ni xëy na dina amal élection yoo xam ne ñëpp ci bokk xam nga tout au début dama doon faral di wax ni respecté wuñu waaye respecté respecté na l'Occident mooy ko fi bokkul ku ne respecté na la mhm. waaye jamono ji dañ koo sës ci mur bi mooy li mu ne bokkatul defu ko euh, ci mbégte maanaam ñàkk pexe moo tax mu ñàkk bokk mooy lan sës nañ ko ci mur bi amatuloon leneen lu muy def lu dul reculer man dama ne da koo def pour wàññi tension bi mais ndéem liñ ko def loo gënalu ko dina xool nan lay def ba am ñenn ñum ci koñaas faire payer ñenn ñi te ci dynamique boobu la nekk ku xool ni muy doxalee en tout cas di nga mën a jànge ci loolu ni dafa nekk di jéem a fayantoo ci tànk yooyu en tout cas la nekkee après ndax dina déglu Occident bi wala déet leeruma parce que dafa doon préserver moom itam ay intérêt mais du moment que bokkatul et wax na ko est-ce que après forcément il est censé déglu yi nga xam ne ñu ngi ko naan na inclusive dama yaakaar ni moom nu mu ko sentiree noonu la ko bëgg defee actuellement mais comme ni ma koy faral di waxee lépp day aajowoo ci population bi ban taxawaay la ciy am donc day des ci population bi si Ousmane Sonko dina bokk wala du bokk si yeneen candidats yi dinañ bokk wala du bokk parce que le peuple aura toujours le dernier mot c'est vrai que appareil yu état dafa dis te dafa métti mhm. naqari naa xeexal waaye gëm naa ne li Sénégalais décidé ni lii mooy am loolu mooy amee incha allah ndax ba ñu ne dañ fii jëlee Abdoulaye wàdd population bi moo taxaw jàmmaarloog état boobu ba mu jóge fi donc gëm naa ni sénégalais yi suñu décidé nii en tout cas dina dem te du rëqandiku kenn gëm naa ni loolooy amee di ñaan rek yàlla na borom bi matal mbébét d' accord d' yéen ñi nga xam ne en tout cas yéen a ñuy seetaan seen émission bi leen di face à l' actualité moom Yolande Camara lañ ci dalal bu leen fàttee aimé rek bu baax li nga xam ni moom mooy en tout cas live bi euh, su ko defee ñu continuer ak li nga xam ni moom mooy euh, émission bi mais tey euh, Yolande gis nañu que ni tey la coalition benn